ñoo si man man. parce que moo tax yow boo tey boo waxee nii dafay jaxal ñu bëri en fait. yàlla ma tiim da nga da nga ci sori woon. yàlla bi ma tiim ci nemmeeku tuuru Ousmane Sonko. def xam na ne lu ma gën a ndax sama àdduna sur le Coran sur la vie de mes enfants mooy li ñu tàqale Khalifa ak Ousmane Sonko dara gënu ma diis loolu. et damay wax gars yi ànd bi ñoo ci gën a dee parce que ànd dañu demee xol. Mm-hmm. lépp